présidentielle bi ñu dëkmal njiital union des indépendants du Sénégal yéy na yàbbi ci mbiram Ousmane Sonko mi mu jàpp ne nguur da ko singali les échos naan ko ma yow xanaa yëgoon ne way wa daanu na ci mbiram Ousmane Sonko seppi gi nu ko seppi ci liste électorale yi yéenekaay bi nii la xëyee xamal ñu ne dogal bi yóbbu nañu ko ca sous préfecture bu Dakar Plateau gannaaw juróom fukki fan yu huissier ba jaabante ba sonn te xamul fan lay yóbbu booba lépp mairie bi Dakar Plateau journal lu ma jambal jaañ bi jàppee ci ne Ousmane ci boppam lan sonkorisé sonko mooma bu weesoo li nu ko sepp ci liste électorale yi l'observateur mi ngi ñuy xamal itam ne délai bi nu ko may ngir mu dabu dogal ba di def recours gàtt na lool waaye coow li mu gudd ak mu gàtt Sud Quotidien nee na la Madior Fall ministre de la justice wéet na lool ci coowal Ousmane Sonko ñàkk mën a bokk ci élection yi mu gàddu niki coowal contumace bi te yokk xar mi karaw kaay bi nee na mooy taxawaay bi ci Ababacar consultant ci wàllu droit am booba jamono am sonkoo geeg indil sonkoo gi ma ngay wéy ci bërëbu tasukaay xibaar yu bari yu nekk ca bitim réew yor yor bi moo ni gisee ne nag ñoo ngi koy tuumaal di ko njiiñ dëmm waaye Amadou Ba bu Pastef ne dara mënta tee Ousmane Sonko doon sunu candidat ci élection bi nu dëkmal loola it la député Pastef bi di Cheikh Thioro Mbacké wax ci biir enquête nee na benn candidat la am te mooy Ousmane Sonko nii la tontoo moom député bi bi ñeel B waaye enquête nee na ak lu ñu bañ gën di fës ci biir parti Ousmane Sonko bi te loola yéenekaay bi nee na bu doon kursa Guy Marius Sagna jiitu na gaaya sànni karawaas ndax daa mel ni ku tàmbalee campagneal boppam ñeel boobalek plan B booba jamono l'observateur di nu tànki jàmm yanuy dox ci APR nee na juróomi nit jóg nañu ngir waxtaan ak candidat yëf fippu te yéenekaay bee ngi séentu yëf yi soppeeku fi fan yi ñu dëkmal ci élection bi ñu dëkmal nag la tribune daa gis ne APR ci risque bu mag a mag la nekk ndax la daloon yéenekaay bi ne boo mayiwul sax dana bijjaaw ci élection bi nu dëgmal ndax coow lu bari waaye li leer la tribune nee na deuxième tour moom bu nu fa demee du jig waa nguur gi Abdou Ndéné Sall ci laas feelu ko ne ko li jigul parti bu ne ci nguur gi kay mooy am candidat yu bari saa sunu ko defee ñàkk la ñuy def PDS it daa mel ni yeesal bànkaas gi nu nekk di def jigu leen direct news nee na fippu la jur firnde gi yéenekaay bi nee na mooy ndaje mu mag mi amoon ci njeextalu ay bés bi ca seen buntu permanence te mujjee mel ni sabar gu tas lii nuru sabar gu tas dëgg kay mooy candidat yu bari yi jëm ci élection présidentielle bu Vox Populi ni gisee jàngat mbir meek ay borom xam-xam yu mel ni docteur Abdoul Aziz Mbodj di jàngale droit constitutionnel ca UADB ni jafe-jafe yi am ci parti yi bu amul woon fii du duñu fi egsi Serigne Mor Mbaye psychologue moom gis ne ñu bari sax xalaatu ñoo yegsi ci doon candidat bay doon njiitu réew la leen dugal ci samp seenuk ndënd kay mooy wone seen bopp ñeneen ñi sàmm seeni intérêt ña ca des nag fexe wut fu nu bokkatu Souleymane Ndéné Ndiaye it daa bëgg a bokk ci élection présidentielle bi vox populi yeggee ñu ko Walf Quotidien moom xëy yeggeenu li mu jàppee ndëgg sërëx te candidat yi fare ci opposition bi war cee bàyyi xel réew mi quotidien mel ni ku naan ñu woowa jamono xel mën naa dal ci ni Sénégal di xeexee jàngoro yi dul wàllante ñu naan ko maladie non transmissible ndax anam gu mucc ayib gi ci sunum réew taxawee fësal nañu ko ca mbootaayu xeet ya di Nations Unies réew mi ne loolaa nga am ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñetteelu assemblée générale bu Nations Unies docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye wone fa mën-mënu réew mi jëm ci xeex yooyele jàngoro le peuple quotidien it di faram fàccee ni xeexee jàngoro yi dul wàllante te sukkandiku ci couverture sanitaire universelle le soleil ne ngir wér gu yaram gu mucc ayib ñeel jur yi nguur gu Sénégal budget benn milliard la génne ñu génn ci le soleil dugg ci bés bi mi nu yeggee ay dëggi xalif général bu Medina Baye Cheikh Mahi Niass ne ci bi lépp yéenekaay yéeneem gi gën a rëy mooy bàyyil dara réew mi ngir ëllëg réew mi di senegal itam nee na mënta suqaliku te jaarut ci mbay moom xalifa bu tedd bi dolli ca ne bëgg-bëggam bi gën a rëy mooy sunum réew yegg ci bañ a tàllalati loxo xalif njiitu réew mi joxante loxo woowa jamono ci xët gu njëkk Le Regard nii lanu yéenekaay bi yëgalee ne Macky Sall ña ngi koy xaar ca Tiwaawan bi ñaari fan desee ci gàmmu gi gàmmu googa Vox Populi nee na kaaraange dana fa doy ndax ñetti junniy policier lanu yóbbu boole ci ay drone ak i caméra lépp ngir kaaraange gu mucc ayib laas mel ni ku naan gàmmu gi duma ci des ginnaaw xëy fësal leeruk Cheikh Ahmed Tidiane Chérif lata muy dikk ca njombe lay xeeñ ca mbuur ak tong ba nu fa nekkee ci wàllu suuf xaalisu covid bi ñu fi tong-tongoon ca ministère des sports ci la libération xëy kanamu enquêteurs ya nee nañu seeni signature dañu koo falsifié ngir defar ay décharge la dage ba tontu ca laajug enquêteurs ya ñeel yooyele signature ak décharge libération gannaaw bam nu ko yeggee nee na enquêteurs ya daal lan mujjee jàpp mooy gaay yi danoo def ay tëgg wëndeel luubalit ay koppar booba jamono réew mi quotidien di ñu xamal ni émission li ci réew mi ci réew mi TV ku ca bëgguta sax fexeel ba bu ko déglu ndax ku ko ñam yéenekaay bi nee na dootoo ko bàyyi Paris Saint-Germain moom bala moo bàyyi démb Olympique de Marseille door ko ba mu ne làpp ñeenti mi quotidien ne moom la nu duma Iliman Ndiaye gaayam yi la tribune ne olympique de marseille kay diik la def ci kanam PSG mi mel ni lu diisoon gan na ci moom mu Edouard Mendy ndax waru ñoo tiit ci ay mbiram laaj wi la stade xëy samp xamal ñu ne ci arabie saoudite ga mu ne di jongante góolub sénégal bi defu fa lu nit xam fukki bit ak ñett la nu ko dugal ci juróom ñaari match waral yéenekaay bi jaaxle bi ñeenti weer kott desee ci coupe d'afrique des nations sunu jigéen ñi moom ci kan wi leen ñeel réew mi quotidien nee na barrage yi lanu ci teggët ñu teg foofa loxo ba incha allah